mais li am solo mooy soo xoolee l'affaire Mame ñaa Niang euh, Ousmane Sonko ni muy doxee danga xam ne Sénégal ñun surtout ñun taskatu xibaar yi dama yaakaar ne parfois dañu toog mu jàgg ñu def exprès fàtte lépp loo xam ne xewoon na fi y a mois nekk di wax ci yoo xam ne amul bopp amul genn parce que temps yi lan mooy la débat mooy da ngay gis des journalistes yu taxaw jàkkaarlook ku mel Mame Mbaye mu ne la par exemple euh, Ousmane Sonko bis bu indee rapport ne dañ ma épinglé Euh, ma livrer sama bopp xaw ma nu mu ko waxee rapport amul mais pourquoi la presque ne rappelle pas à Mame mbay ñaar que ni moom ci boppam moom moo taxaw ne am na rapport de l'inspection générale des finances bu ñu def ci Prodac que moom ci boppam taxaw ne moom moo demandé ñu ñëw auditer euh, le Prodac l'actuel premier ministre muy Amadou Ba ministre des finances moom moo toog ci mu Maïmouna Ndour Faye ñëpp di ko seetaan mu ne Mame Mbaye Niang xawoon na ko mere parce que dafa yaakaaroon ne rapportu euh, inspection général des finances moom moo ko fuité mais lu ñuy fuité kay mooy lu existé lu existé wul nan lañ koy fuité sama gars yi hmm? donc euh, que l'on se mette maintenant à dire way am na rapport amul mais franchement su may dégg journaliste di poser cette question là wala boog nit di leen ko wax ñu toog di ko déglu man j'ai un sérieux problème avec ça un, vraiment un sérieux beneen bi mooy yim euh, Seck du Forum Civil nga xam ne pratiquement toute sa carrière daf ko nekk ci di xeex pour la transparence contre la corruption bind un livre sur le Prodac ñu ne lan mooy euh, euh, cëslaayu livre bi lan mooy base bi lan mooy source bi mu ne le rapport de l'inspection générale des finances bi mu def ci Prodac mais nañ bàyyi naan rapport am na ak amul la seule chose ko bi ñu war a werante mooy rapportu IGE la wala IGF te ñëpp xam na ne du IGE la Ousmane Sonko mi wax ne IGE la il na ne c'est un lapsus ou quelque chose comme sax mais il faut qu'on arrête ça te d'ailleurs coowal rapport boobu moo tax Sénégal am beneen tension boo xam ne ñëw na tey dolleeku ci tension politique bi ñu nekkoon man waxoon naa fii ci petit déjeuner man musuma mënuma comprendre ñu ne ñu là c'est juste un procès en diffamation boo xam ne kenn ci doomu Sénégal moom moo yaakaar ne dafa am beneen doomu Sénégal bu ko diffamé mu ne da koy yóbbu procès procès en diffamation nga xam ne le tribunal bii nga xam ne moom la Macky Sall chamboulé démb da ciy àtte di ci àtte di ci àtte di ci àtte di ci àtte ay yoon yi yoon yi yoon yi yoon yoon presque journaliste yi Sénégal ñi ëpp ci ñoom ñi ëpp ci ñoom yóbbu na leen wala bokk ñi bari ci ñoom yóbbu na leen procès en diffamation ñu dem taxaw layoo àttekat bi wax ñu wax ku ne dem man maa ngi ci fàttaliku bu di opposé woon le journal L'Observateur boobu Aliou Ndiaye ko jiite ak ñoom Karim Wade dañoo dem procès Karim Wade taxaw wax euh, ñoom journalistes yi ñëw taxaw wax juge bi décla euh, ni ñu ko waxee sax joxe décision ku nekk dem am na yu bëree bëri yoo xam ne day am day am au tribunal tey jii nii. logique pour logique d'ailleurs ku yóbbu Ousmane Sonko au tribunal pour procès en diffamation war nga mën a yóbbu Birahim Seck au tribunal pour procès en diffamation mën a yóbbu journaliste yu bëree baree baree bëri commencer par man mi yoo xam ne bind nañ wax nañ ci rapport Prodac boobu war nañ leen yóbbu procès en diffamation c'est aussi simple que ça mais ce procès en diffamation là fi nga xam ne fa la ko état bi yóbbu procureur dugg ci d'ailleurs procureur bi sax soit dit en passant dindi nañ ko fa démb ba indi keneen procureur dugg ci am ay charge yoo xam ne def na ko ca ca mbir ma loolu leen donc lay tekki moo ne mbir mi dootul diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang mais diggante Ousmane Sonko la ak état bu Sénégal te man dama gëm ne sax dans cette affaire la Mame Mbaye du ci dara wala boog il n'y pas pour grand chose man je pense que Mame Mbaye benn pion la bu ñu utiliser rek pour atteindre un objectif te atteindre objectif boobu moom moo commencé di jur coow lu mettee métti ci réew mi parce que li xew corniche keroog jeudi sénégalais bu waxal yàlla xam nga ne lu nekk mënoon na faa am bakkanu doomu aadama mënoon na faa rot parce que pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñu gis su ma sañeen sax ne da dans beaucoup d'autres pays du monde doo fa gis loolu un leader politique ñu ne la kii c'est le chef de l'opposition au Sénégal dem na tribunal pour un procès ñu ne procès bi amul dañ ko renvoyé ba le 16 mars mu wàññeekoo tribunal ne day ñibbi këram jaar ci yoon ñëw ba corniche alkaati yi baare ko fii ngay jaar doo jaar fii fii ngay jaar doo jaar fii nangam ak na coow li bari ñu toj vitre otoom génn ko par force dugal ko ci voiture blindée yóbbu ko kenn mësu ko gis kenn mësu ko gis kenn mësu gis man j'ai vu les images en direct parce que dama doon xool YouTube Facebook rek je suis tombé sur le gars ki filmait ça en direct et j'ai vu ça ba léegi man mënuma comprendre comment est-ce que qu'est-ce qui s'est passé la tête des policiers ba ñu agiré noonu moo tax bi Ousmane ko taxawee ne moom dafa jàpp ne policiers yi nga xam ne ñoo ko génnee ci otoom par force toj vitre bi yóbbu ko dafa jàpp ne dañ koo def pour sécurité te boo xoolee explication yi nga xam ne moo jot a génn même du côté du pouvoir dañ naan la dañ ko def pour sécurité Ousmane euh, sécurité Ousmane Sonko ñu bari nag wax nañ ci ne euh, mosuñu gis Euh, kuy assurer sécurité nit ba toj vitram nangam ak nangam ak nangam ak nangam coow li baree baree baree bari mais man dama jàpp ñaar du ma weddi waxu Ousmane Sonko pour pour pourquoi parce que Ousmane Sonko est la seule personne sinon l'une des rares personnes boo xam ne discuté na directement ak les chef des policiers wala gendarmes yi nga xam ne ñoo nekkoon sur la corniche wax na ak ñoom Ousmane Sonko est la seule personnes wala boog l'une des rares personnes bi nga xam ne moom la ñu génnee ci otoom dugal ko ci euh, véhicule blindé police mu ànd ak policiers yi di dem diggante bi ñu ko jëlee corniche ak bañ koy yóbbu këram est-ce que dañ ko faa expliquer lu war a tax moom mu gëm ne dañ koo def pour sa sécurité on verra fekkee ma ko mënuma ci aventure mais li nga xam ne gis naa ko mu attire sama attention trop mooy dafa am benn vidéo boo xam ne. Euh, raar na ah, wala boog man benn yoon laa gis muy tey tey ji laa gis. vidéo bi bokkul ak bi nga xam ne moom la ñu filmé ci biir oto Ousmane Sonko bi muy wax ne jibi muy jibi bi muy àndal jibi Ndiaye woo ma téléphone jox ma commissaire ma wax ak moom. parce que boobu da ngay dégg muy wax ak commissaire nga dégg mu naan la mu naan ko est-ce que je suis en état d'arrestation commissaire bi ne ko non euh, euh, tu n'es pas en état d'arrestation mu ne ko comme comme je ne suis pas en état d'arrestation mënuma tijji li nga xam ne mooy vitre euh, mënuma tijji sama oto coow li ne foofu am beneen vidéo boo xam ne ci même vidéo bi sax dangay gis ñi ne ci ñi ne ci bunt bi di ko waaj a tijji moo ci boppam mi ngi naan leen est-ce que je suis en état d'arrestation bi ñu tijjee ba jàkkaarlook moom wax na leen ne est-ce que je suis en état d'arrestation tontu wuñu te boobu su fekkoon ne dañ ko wax ne ko vous êtes monsieur Sonko vous êtes en wala Ousmane Sonko vous êtes en état d'arrestation lii logique mooy di mooy moom usman Sonko day tàllal ñaari loxoom jox leen ko ñu mënate ko dugal ci oto yóbbu commissaria wala ñu yóbbu feneen mais ba léegi waxuñu ko ne tu es en état d'arresta en état d'arrestation ba léegi alkaati waxuñu ko mais vidéo bi ma lay wax dafa ëpp solo vidéo yëpp parce que vidéo bii moom laa tiim ni di ko xool mi ngi am avant bien avant ñuy toj vitre bi. mi ngi am également bien avant euh, su may xool image bu baax Ousmane Sonko di dugg ci biir euh, nu ñu koy waxee mooy euh, tunnel bi nga xam ne fa la ko policiers yi jaarloo par force mooy bi nga xamee ne dañoo romb RFM wër affaire boobu noonu loolu mel ne ab pont bu ndaw war a jàkkaarloo ak ñaari yoon bi jaar ci kaw ak bi jaar suuf tunnel bi policiers yi ñëw jël seen fourgon boobu teg ko ci yoon bi nga xam ne moo jaar ci kaw nekkoon na jaar suuf foofu dafa am lu am solo lu fa am. te man vidéo bi tey laa soo gis parce que xaw ma nag xëy na gars yi gis nañ ko man maa jotul woon dafa am discussion bu am solo boo xam dafa am ci diggante Ousmane Sonko ak commandant bi nga xam ne moo nekkoon sur terrain boo xoolee image yi Ousmane Sonko dafa tijji vitre portière arrière oto bi nga xam ne fi la toog dafa tijji vitre bi jàkkaarloo ak commandant bi ñoom ñaar ñuy waxante ay bët ci bët commandant bi il est à quelques dix centimètres de Ousmane Sonko ñuy waxante ci bët ci bët mi ngi taxaw ci portière Ousmane Sonko génn sax loxoom li am solo. mooy lan la Ousmane Sonko wax commandant bi te sax am nañu ne c'est le commandant de la brigade euh, d'intervention polyvalente muy BIP BIP lan la ko wax daf ne ko je suis venu Ousmane Sonko mooy wax te su ma ko mënoon dama koy teg ñëpp dégg ko da yu je suis venu avec ce véhicule maanaam sama oto laa ñëwee je rentre avec ce véhicule Ousmane Sonko daf ne commandant bi sama oto laa ñëwee te sama oto laay ñibbee. donc ça veut dire quoi que ni Ousmane Sonko avant muy dugg foofu xamoon na ne policiers yi dañ ko bëgg génne ci oto bi mu nekk moom dugal ko seen oto parce que su fekkoon de du loolu du wax commandant bi ne ko je suis venu avec mon véhicule et je rentre avec mon véhicule muy benn donc nañu retenir bu baax Ousmane Sonko à partir de l'instant où tijji na parce que parce que lycée bien avant ñu toj ñuy toj ñuy toj portière bi dafa tijji euh, vitre bi ba mu wàcc. mu ne commandant bi commandant bi di ko dégg mu ne ko je suis venu avec ce véhicule je rentre avec ce véhicule maanaam oto bii ma toog moom laa ñëwee te moom laay ñibbee ça veut dire quoi que ni l'intention jëlee Ousmane Sonko ci biir otoom dugal ko euh, ci beneen oto existait déjà dans la tête de des chef de la police bien avant ñuy toj vitre bi muy benn ñaareel bi Ousmane Sonko ba léegi mooy wax mu ne mu ne commandant bi si avec. toute votre sécurité vous na pouvez pas faire face à des nervis c'est qu'il problème Ousmane Sonko moo wax loolu commandant bi mu ne ko su fekkee ne seen sécurité bii ngeen yor yépp yéen mënu leen a contrôler ay nervis c'est que y a problème qu'est-ce que ça veut loolu li muy tekki mooy Ousmane Sonko soit alkaati yi wax nañ ne ko dafa am ay nervis yoo xam ne ñoo ne ci kanam te boo jaaree foofu nekkoo en sécurité soit moom Ousmane Sonko moo xam ne am na ay nervi ci kanam te su fekkoon ne moo xam ne am moom moo xam ne am na ay nervi ci kanam j'imagine que danaan commandant bi am na ay nervi yu ne ci kanam jël leen seen disposition mais daf ne ko ak seen sécurité bi yëpp su fekkee ne mënu leen a faire face à des nervis c'est qu'il a problème cela veut dire quoi que ni quelque part wax nañ ko ne ko am na ay nervi yu ne ci kanam est-ce que commandant bi dafa ko wax ne ko am na ay nervis yu ci yu ne ci kanam moo tax ñu bëgg leen jaar la ci suuf ci suufu euh, ci biir tunnel bi je sais pas mais ce qui est clair mooy là tu l'entends distinctement mu koy wax mu leer mu ne commandant bi je suis venu avec ce véhicule je rentre avec ce véhicule si avec toute votre sécurité vous ne pouvez pas fair face à des nervis c'est problème loolu moom ku jot ci vidéo bii nga xam ne c'est bien avant je le répète bien avant ñuy toj vitre bi da ngay gis Ousmane Sonko wàcce moom ci boppam vitre bi di wax ak commandant te li tax ma gëm ne c' est avant ñu dugg tunnel mooy soo xoolee image yi am na ñoo xam ne ñi muy àndal ñi ngi taxaw ci ginnaaw oto bi ci ginnaaw oto Ousmane Sonko am na ñu taxaw ci kaw sa veut dire quoi que boobu xëy na coow li métteegul ba ñu toj parce que bi ñuy toj vitre yi fekk nañu dàq ñeneen ñu mu àndaloon ak ay grenade lacrymogène bañ daw mais là tu vois Ousmane Sonko ak le commandant qu'est-ce que le commandant lui dit nous allons vous nous allons euh, vous faire sortir par tous les moyens nous allons vous faire sortir par tous les moyens c'est ce que c'est la réponse ba nga xam da nga koy dégg mu wax ko ko nous allons vous faire sortir par tous les moyens gars yi li xew corniche yàlla xam na ne waxuñu lépp policiers yi ils ont été de grands professionnels man loolu laa gëm mën na leen projet toj vitre bi parce que euh, je je pense que amoon nañ d'autres moyens d'agir euh, pour bañ a toj vitre mais quelle information le policier yi amoon boo xam ne moo waroon a tax ñu tiit ñoom dëgg-dëgg tiit ci sécurité Ousmane Sonko ba jaral leen ñu toj vitre bi génn ko def ko seen oto daw ak moom loolu lu jara lu jara lu jara gëstu la lu jara waxtaan la te man démb wax naa ci keppaar gi ne tant que les choses reste ci discussion wu réseaux sociaux yi ñu naan waaw c'était pour sa sécurité jërul werante mais ce que Ousmane Sonko waxee moom ci boppam wax ne. dañu ma génne sama oto dugal ma ci beneen oto parce que dañu bëggoon a sama sécurité parce que dafa am ñoo xam ne dañoo nekkoon ci kanam bëgg a faat sama bakkan Ousmane Sonko ko wax ça veut dire ni il a des informations fan la jëlee information yi est-ce que c'est sur le terrain des opérations ci corche dañ ko ko waxee wala c'est après bi mu duggee ci oto bi wala dafa ñibbi këram ñu woo ko téléphone explique ko ni mu demee je n'en mais ce que je sais parce que am naa ay bët mën naa xool te mën naa dégg mooy bien avant ñuy toj vitre bi. y eu une discussion entre Ousmane Sonko et un des chefs yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon sur le terrain et la discussion si lu simple la ça ne dure même pas une minute mooy je suis venu avec ce véhicule je rentre avec ce véhicule si avec toute votre sécurité vous ne pouvez pas faire face à des nervis c'est qu'il problème lii moo génne ci làmmiñu Ousmane Sonko avant bien bien avant ñuy toj vitre oto la réponse nous allons bu faire sorti par tous les moyens ce qui veut dire que ni nos policiers nos gendarmes gàcce ngalaamaa ñoom mën nañ leen a euh, euh, mën nañ leen reprocher lu ne mais en tout cas man Moustapha Diop ci sama xam-xam bu gàtt lool parce que xaw ma ci loolu bari moo di ne je suis convaincu que ñoom ils avaient des informations que man aw ma que yu ma amul man mais li am solo mooy puisqu'ils avaient des informations supposons parce que si supposition lañ nekk que ni ñoom ils avaient des informations selon lesquelles il y avait euh, nu ñu ko waxee sax des nervis euh, sur la corniche prêts à attaquer Ousmane Sonko la question que pose mooy lu tax policiers yi demuñu jële nervi ñooñu tuddee ay pour pourquoi pourquoi demuñu jëlee leen foofu pour que Ousmane Sonko mën fa jaar normalement lu tax est-ce que jëlee leen fa da doon représenter plus de danger que dugal Ousmane Sonko ci oto yóbbu ko je sais mais la grande question mooy ces nervis là est-ce que c'est des nervis je sais pas moi normaux yoo xam ne même si y a pas un nervi normal franchement euh, des nervis qu'on peut recruter par-ci par-là wala boog c'est des nervis yoo xam ne je sais pas dañu jege les forces de défense et de sécurité ba ñoom xamuñu nu ñuy nu ñuy defee ak moom c'est des questions que je me pose mais li leer ba leer encore une fois mooy soo dégloo la discussion entre Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon les chefs des policiers yi nekkoon sur la corniche di nga xam ne Ousmane Sonko avait l'information bien avant ñuy toj vitre-am que ni y a des nervis sur la corniche information fan la ko jëlee man gëw ma ne daf ko jëlee ci ay source boppam parce que bu ko jëlee woon ci ay sources boppam dama yaakaar ne danaan kon commandant bi y a des nervis devant moo tax bëgguma jaar fii wala nangam ak nangam mais il lui si avec toute votre sécurité vous ne pour pas faire face à des nervis a problème c'est ce qui lui a dit qu'il y a des nervis c'est la question qu'on doit se poser et su fekkee ne l'information selon laquelle il y avait des nervis euh, sur euh, la corniche ci police la jógee pourquoi la police n'a pas agi contre ces nervis là c'est des questions nombreuses qu'on se pose et incha allahu rabbi les enquêtes vont se poursuivre et je suis à peu près sûr que ni d'ici quelque temps on saura exactement ce qui s'est passé sur la corniche mais man gëm naa tey jii que je ne suis pas d' accord avec les policiers ah ci vitre bi ñu toj forcé nit génne ko te ñu bari wax ne mën nañ am beneen moyen génne ko ci noonu mais su ma déggee version yi nga xam ne moom laay jot dans cette affaire ak vidéo bi ma seetaan j'ai l'impression que ni quelque part du ma ko duma ko waxee noonu man j'ai l'impression que ni y avait panique sur la corniche panique sur la corniche pour bëgg fa jëlee ousman soo ko mu gën a gaawee pourquoi y les policiers kii de saab et les gendarmes yi nga xam ne ñoom ñoo fa newoon te xëy na ñoom dinañ ko mas a mas leeral bis même si même si euh, du ñuy communiqué yu bëree bëri ci loolu mais en tout cas j'ai l'impression moi Moustapha Diop c'est mon impression personnelle que ni par leur professionnalisme parce que euh, xëy na ils nous ont euh, sauvé d'une catastrophe boo xam ne mënoon na am ci corniche parce que lu nekk mënoon na fa xew maintenant nag ah eux de voir comment gérer ces genres de situation là su fekkee dafa amoon ay nervis la corniche ñoom ñoo war a xam ñan la ñu identifier leen jaar leen ci yoon parce que nerf bi jaar la ci yoon rek la mën a nekk sinon sinon siino ça veut dire que ni nous les sénégalais chaque sénégalais politicien woo euh, keneen a ci yam tu es en danger parce que à tout moment tu peux faire face à des gens yoo xam ne mën nañoo solo noo xam ne doo leen teg mukk na ñi ay samba leen alors que ay ay samba lañ.